alhamdulillahi alkarim silminan ala ishtighali bi furudin wa sunan ahousubillah inna waliyallah wa ma tawfiqa billah illa billah mbokk yi ñuy bàyyi xel ci site internet bi di 24 actu fu ngeen mën di nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew ñu leen di nuyu bu baax di leen ziar waaye itam di leen jaajëfal ci topp gi ngeen ñi topp ci site internet bi di 24 actu comme ni ñu ko baaxoo di ànd ak yéen saa su nekk rek seen émission bi ñu dippee euh, gëstu diina ji gëstu diina ji nag nekk émission boo xam ne comme li ñu leen ko waxee woon rek saa su boo xam ne bépp thème bu leen lënt ci diina ji bépp ponk bu leen leen lënt ci diine ji danañ leen ko indil waaye tam dalal fi ab borom xam-xam bu mag ngir moo uh, yaatalal leen ko waaye tamit leeralal leen ci lépp loo xamante ne lëntoon na leen uh, gëstu diine ji tey mu am gan gu mat gan yaakaar naa kenn dootu ko présenté ci dëkk bu sell bi di Touba muy Serigne Khadim Sall nekk koo xam ne dafay jàngale ci école Al bu Daam waaye tamit di jàngale fële ca Kayel uh, laata loolu rek ñuy dugg ci ponk bi ñu bàyyi suñu gan mu nuyoo Serigne Khadim maa ngi lay nuyu ma bàyyi la nga nuyu ak ñi nga xam ne ñoom ñoo lay bàyyi xel ci bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin sallallahu wa sallam ala alhadi alamin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa man tabaahum bi ihsanin ila yawmi ddin ma baad salaamullahi aleykum wa rahmatullahi wa barakatu ñu nuyu mboolem ñi nga xam ne ñoo ñu taataan ñu seetaan di la nuyu yow soxna su di la ziar bu baax a baax ñu mm-hmm. ñaan yàlla subhanahu wa taala mu defoon ñu tawfiq ci émission bi nga xam ne moom lañ bëgg a def. incha allah jërëjëf euh, sëriñ Xaadim Sall ñu ngi lay jaajëfal ci nuyoo bu am solo boobu macha allah mu am solo comme ni ñu ko waxee woon sànq rek ci bopp jotaay bi ñeen a ngi ñuy topp ci seen émission bi ñu dippee gëstu dina ji leen di indil mooy li nga xam ne moom la ñuy tuddee al infaq fi sabilillah di joxe ci yoonu yàlla lan mooy joxe ci yoonu yàlla yéen ñi nga xamante ne bëggoon ngeen koo xam wala dan ngeen ko def te xamoo leen lan mooy joxe ci yoonu yàlla laataa loolu rek ñu bàyyi suñu xaa suñu xaadim euh, mu dugg ci euh, ponk bi al infaq fi sabilillah suñu xaadim ñu doon faram fàcceel daal jëmmi al infaq di joxe lan nga ñuy wax. jërëjëf soxna su al infaq fi sabilillah mm-hmm. dafa dogal ko ñaari baat. Mm-hmm. Mm-hmm. al infaq. mooy joxe maanaam jël alal yi waaye nag ni ko diine gisee mooy joxelee doom boo xam ni dañ ci sàkku ngërëmu yàlla subhaanahu wa taala xam ni loo ci def day sori ngistal am du ko jëlee li ngay joxe yàlla rek moom mooy tax nga di ko def loolu moom mooy infaq muy dépenser mm-hmm. alal mm-hmm. mu jël joxe mm-hmm. bu dee nag beneen baat bi muy sabilullahi sabilullahi ñu koy wax yoon yàlla dafa am ñaari tekkin beneen bi bi jiddu dañ koy faral di dégg mooy joxe boo xam ne day jëm ci ñi nga xam ne dañuy xare di xeex ci yoon yàlla. Mm-hmm. te loolu jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tàmbali woon mm-hmm. ci déggin bu gën a yaatu nag suñ ko mooy joxe ci anam yi nga xam ni. Mm-hmm. ci aw yiw lay lay indi. maanaam lépp loo mën a joxe rek. te loola mu mën na indi aw yiw rek. loolu lay tekki. kon ñu gën a dëgg daal joxe ngir yàlla rek tax yàlla ci. lépp loo xam ni lu baax la te l'islam dana ko gërëm kon mhm. loolu moom mooy allah mu nekk lu am solo comme ni nga ko yaatalee noonu rek al infaq fi sabilillah euh, euh, oustaz euh, ñu bëgg nga yaatalal ñu ci anam bi ban anam la ñuy joxee ci yoonu yàlla mhm. xam naa sax dinaa daat tuuti mhm. am lu ma leeral ndax li ñu waroon a jiital mooy. Mhm. lépp loo xam maanaam alal yi nga xam nit ki dina ko sàkk. Mhm. alal yi ñuy sàkk. Mm, ci ban anam la ko war a sàkkoo bu war ko mën a dépenser ci yoonu yàlla ok. alal jooju nag. Mhm. daa war a nekk alal ju leew. loo xam day dagan na. ndax euh, mooy lépp loo xam lislaam may na ko nit ki mu sàkkoo ni. sàkkoo ni alal. muy wax kasbul xalaal. muy sàkku lu leew. maanaam lu lislaam tere rek. loolu waroon koo jaay ci am alal mel ni sàngara. Mhm. sàngara boo ko jaayoon. doon mhm. ñu am ci alal. Mhm. alal jooju mënoo ko def. ci yoon yàlla. kon li ci jiitu mooy nit ki day sàpp alal bu leew a leew doo ko mën a nag xool fan la ko war a mën a dugal. foofu nag ñaari anam la. li ci jiitu. borom am dañuy wax ne da ci am boo xam ni farata la nit ki daf koo war a jëf am ci boo xam ne dañ koo sopp ci moom. mu def ban mooy farata ban mooy farata ji. semence bi ciy farata. Mhm. mooy nga dépensé jëm jëm ci sa bopp maanaam lépp loo xam ni soxla nga ko te muy lu dagan mhm. nga def ko ci yow sa bopp lu mel ni lekk ak naan ak surtout ci wàllu yére ak lu ci yi ngay soxla lu mhm. mu ñàkk waaye tamit dépensé jëla ko seen njaboot maanaam njaboot bi la xale yi nga jël àll jooju def ko ci ñoom ñetteel bi mooy nga dépensé jëmale ko ci sa soxna soxna si ñoom moom la yàlla dégg yow la yàlla wax ni yow yaa war a dépense yi kon yii ak beneen bi si mujj mooy génne asaka génne asaka ak lépp ci aju loolu mooy anam yi nga xam ne dafa war ci nit ki mu def am na farata la ci mu def bu dee soxna su bi nga xam ni moom lañ mooy saraxe lu mel ni saraxe maanaam lépp loo xam ne nit ki daf koy génne ci alal di ko dépensé di ko dimbalee ñi nga xam ne ñoo néew doole. Mhm. loola day dugg ci buntu lu ñu sopp ci moom mu def ko. mel ni ngay jàppale koo xam ne jëriñ la. Mhm. koo xam ne waajuram dafa génn. Mhm. wala waajuram mu góor. te moom mesure dugg. maanaam tollagul ci at yoo xam mën naa taxaw boppam. kooku nga dépense ci alal sa alal jëm ci moom. loolu dañ ko sopp ci yow. waaye soxna soo xam ne borom kër boobu daa génn àdduna. kooku tamit sopp nañu. ci nga jàppale ko dimbali ko ba mën a taxaw boppam. Mm-hmm. waaye tamit ñi nga xam ne ñoo néew doole. ñàkk ñoom it nga jàppale leen ak nga jël sa di ko maye jël sa alal maye ko dafa dugg ci buntu boobu ba tey ñu ñu sopp waaye tamit joxe ay ay cadeau. Mm-hmm. ñu wax ñu di mm-hmm. buntu addiya fu muy dugg. nit ki moo coobarewu tànn jël alalam joxe ko. mu dugg ci buntu. xel comme ni nga xam ni ko ni ko mbokk ni ko mbokk yu bëree bëri. di di taxawee. ak am na lu ñuy wax tamit maanaam loo lépp loo mën a coobarew rek di ko joxe ci. institution yi nga xam ni seen taxawaay ñoom. mooy dimbali ay nit. yoo xam ne ñoom ñëw doole ci anam bu mu mën a yomb nga jël sa alal dem jox leen ko ñoom. ñu koy dépensé. donc ñooñu yëpp ci nit ñi koy coobarewoo mën a xettali kenn bu mu mën a doon rek. sa wàll alal. kon ñaar yi nga xam ni. mooy bunt yi nga xam mhm. allah oustaz nga leeral lu am solo waaye tamit ci biir wax ci da nga cee duggal ponk yoo xam ne yu mat bàyyi xel la mu ci côté li nga xamante ne mooy diggante borom kër bi ak soxnaam ñu seetlu ne parfois da ngay gis borom kër boo xamante ni day yëkkati alal jox ko soxnaam donte moom day fàttali ne comme si que ne lii daf koo war mais day toogaat di ko wax naan ko maa la defal lii maa la defal lii wala bi ngay ñëw ci man kat meloo woon nangam lu lu ne si yow rek ma maa ko ci def kon tamit loolu oustaz yan leeral nga ciy def ci borom kër yi nga

dafa dafa war a jot dépense am. Mhm. kooku borom kër gi daf ko war a joxe. te war wër te xaar nga ko ci sant ko ci gërëm. Mhm. ndax lu ko waral. Mhm. lu loo xam ne ko coobaree wu. loolu nag li nga waxee rek jafe-jafe la. jafe-jafe dëgg la léeg-léeg eh, ñi nga xam ni ay borom kër lañ am na suñu léeg-léeg dañuy bàyyi soxna ngir ñu mën a fàttaliku ni ñuy faratale wala sax oustaz dogguma la mais borom kër yi nga xam ne mën nañoo xëy wàcc seen kër 2000 francs génn ci mbedd mi di fi maye 10 000. waaw loolu moom moom la doon jox sàmm àllam. xam naa ne nag moom wala euh, mhm. mhm. lu doy waar. Mhm. lu yéeme yéeme. lu ñàkk yërmande moo koy def. ku ñàkk responsabilité. ndax responsabilité dafa rëy. su la suñu borom tegee. donc donc gàllanoo ko donc boo ko def gàllanoo. kon li la waraloon moom mooy sa borom kër boobu wala sa soxla soosu. Mhm. nga jox ko li mu soxla. Mhm. lépp ci wàllu dépense. doo ko mën a nekk xool keneen koy dimbali. Mhm. ndax bii day faral ci yow. da macha allah oustaz mu nekk lu am solo oustaz ma bëgg nga dikk ci fi nga xamante ne mooy comme dañoo seetlu ne tolluwaay jamono ji nit ñi dañuy euh, joxe alal waaye tamit ñi nga xamante ne dañoo am dañuy jàppale ñi nga xam ne ñoo am ñi amut ñu sàggana leen oustaz ndax loolu bokk ci li nga xam ne mën nañ ne jafe-jafe yu bëree bëri moom moo ko jur li nga wax dëgg la dëgg wér wér ndax ñu mhm. mu nekk di mën sëkk loo xam ni dafa tracé loo xam ni jodaaroon mhm. loolu du am mhm. ndax fekk koo xam ne o na ba pare dañ ko yokk. yow mhm. di yokk alalam. Mhm. am fekk am na ñu fi ne ñoo xamante ni amuñu sax lu ñu lu ñu lekk. Mhm. loolu foog naa ni ñaata yërmande mën koo weesu. waaye nag ñàkk a xam. say priorité moo koy waral. bu xamee li ko war dëgg-dëgg. su war na ko mën a o kon képp koo xam ni. yàlla dénk na la alal. te ndénkaane la. dañ ko war a ni ndénkaane la day gis ko am danaa la soxna si man sama alal ji dama koo ñàkk. dama cee sonn kon du ma ko jox n'importe qui. <laughs> du du ma jox ma. Mhm. te moom xamul ni coono moom daj. waaw mhm. alal bi am ko daj coono boobu te amul. Mhm. la ma am. incha allah loolu moo lay wax ni la dénkaan ne yàlla moo koy dénk ku soog. waaye yow doo ma ci dara. lenn lu dul gëstu rek ak sabab lu kese. suñu borom nag moo lay jox. bu yàlla joxee. am na ñoom la wax ni la ñoo ne nga war a jox. parce que l'islam li tax muy diine ju mag. bi mu dénkaanee alal gi dalaa wax fan fan nga ko war a dugal. seetaan noonu la nga koy dugal fu la neex. waaye dala ne buntu yaa ngi nii. fi nga a jaarale. kon soo ko amee. boo xoolee boo xoolee da ngay dem di jox ko am ba pare. macha allah seet ñi néew doole. macha allah ñu dimbali leen. Mm-hmm. la ca gën nag. Mm-hmm. ci buntu asaka bi. Mm-hmm. mooy am na ci ñoo xam ne dañuy génne asaka jël ko di ko séddale ay waaye boobu da ci xarit moom génne azeka mm. seet koo xam ni yorul maanaam amul nga jël xaalis bu bari bari ci li nga génnee azeka mm-hmm. jox ko ko moom bare orienté ko dimbali ko ndax su ëllëgee moom mu mën a bokk ki nga xamante ni mën nañ ne koñ bi nga xam ne fi la dëkk am na si ñoo xam ne lenn la moom mën na leen a jox te yàlla tax romb leen fa di dem foo xamante ni ku lu mel ne ay genre màggal wala yenn place yoo xam ne day dem pour battre léegi noonu nañ ko naka nga ma ko mën a tolooree waaw xam nga nag l'islam moom tërëwul nga jéggi dem jox ñeneen moom tërëwul mm-hmm. waaye bu dee ci wàllu aseka da lay wax ni la fi mu ñoree moom mm-hmm. fi aseka di ñoree mm-hmm. da ngay fexe ba joxee ko foofu ma jox leen misaal rek ku yor benn bitik ci benn kon waa kon bi di jënd ci yow nga war a génne sa aseka li gën a li nga war a def mooy soo génnee aseka ji da ngay joxe ngay xool ñi ko war a ñi ko yelloon ci kon bi nga jox leen ko foofu ndax foofu la ñoree mooy bis bu yàlla dogaloon natt li la dal ñoom ñu mën a taxaw dimbali la ci waloo deñ mhm. soo ko deful la mhm. ñuy wax ki ñaan mën naa dox seen diggante mhm. am na naan moom dafa yor alalam ci kon bi te du ci dimbali kenn kon fa nga war a tàmbalee mooy foofu ci kon bi waaye nag bu tee nag man ngaa jéggi nag su soo soo dimbalee ñenn ci waa kon bi man ngaa seet ñeneen ñu ñëw doole faneen tamit ñu jàppale leen loolu lu war a mën a nekk la waaye nag bàyyi fi waa kon bi te gis xam seen jàngoro dem ni fa jàngoro yi ñeneen ak jafe-jafe yi ñuy dund loolu moom mhm. gënul mu nekk lu am solo macha allah xam naa tamit euh, ñu bëgg a xam ndax doxe googu ci yoonu yàlla lan la mën a defal jural doomu aadama bi. waaw mhm. mhm. moom muy wër. te bu soñal moom إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. kon ci biir aaya bi gis nañ ni yàlla war na ni aljana maanaam daa wax ni ñu gaaw jëm ci njëkkalum yàlla ak aljana. te ci biir li koy joxe moom mooy joxe ci yoonu yàlla. wax na ko ci biir aaya bi mhm. ku bëgg am mhm. eh, ni aljana mhm. da ngay joxe ci yoon yàlla ñaareel bi tamit mooy da lay musal ci sawar da lay musal ci sawar kenn ku ci nekk boo sañoon tamit ndax day yemale ab julit am na ci ñoom man la lay yóbbu ca sawara sawara wa fóot leen ban set ñu doog a ñëw ci aljana léegi nag soo boolee ñaar yi mooy dugg aljana te doo jaar sawara xam nga loolu day kon bokk na ci joxe ci yoon yàlla mm-hmm. day fegal nga tàbbi sawara mm-hmm. loolu yoon yoon bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax ci xadis mu ittaqu naar walaw bi shiqqi tamrati mm-hmm. maanaam na ngeen wattandikoo sawara donte sax xaru tàndarma sax ngeen di ngeen di joxe ci yoon yàlla beneen bi ci des muy ñetteel bi mooy képp koo xam ne da ngaa am ay ñaawteef yoo xam ni da nga koo xam daf eh, joxe yoon yàlla daf koy dindi te rafet rafet yi nga am da koy ful moom gën a bari mhm. kon yooyu rek ci tënk mhm. maanaam bokk na ci yi nga xam ni mhm. day waral joxe ci yoon xam naa bi ci guddi rek mooy day laabal ki nga xam ne moo koy joxe ndax alquranul karim wax nañu ko ci li ñuy wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xuz min amwaalihim sadaqa tutahhiruhum maanaam xam ni da leen di da day sellal alal ji tamit. te mm-hmm. kenn ku nekk bu mm-hmm. sañoon soo joxee ci yoon yàlla sa alal mm-hmm. ful ba pare suñu borom laabal allah oustaz léegi nag boo doon dénkaane ñi nga xamante ne mën nañ ne yor nañu alal waaye tamit joxe ci yoonu yàlla joxe ci yeneen yoon yi sax mën nañ ne moo leen gënal foofu ci joxe ci yoonu yàlla lan nga leen di dénk. waaye li leen di dénk. soxna su mooy li ñu war a njëkk def mooy. ñu xam fan la ñu war a dugal alal bi fu la neex duñu ko mhm. yàlla rëddal na ko boppam mhm. waaye bis boobu yàlla xamalee fan nga koy dugal mhm. ba nga koy def na nga ko def te yàlla tax moo al ixlaas mooy sellal ko te yàlla tax ndax képp koo xam ne ngay joxe sa alal te yàlla taxul dana leer ni la doo ci am loolu yàlla ndax joxe joxe te yàlla mooy da ngay nangu ni xéewal gi la yàlla wërsëgale yaa la yàlla digal di ngir mu dolli waaye tamit li ko dénk ci mu wane joxe ba pare topp ci di ko wax. ñu mm-hmm. am solo sax képp koo ko tudd. Mm-hmm. saa su nekk di ko wax. Mm-hmm. bu yàggee yoon ba nga ca war tamit lu bari loolu sax nag ci réew mi. am na ñoo xamante ni. dañuy faral di wax suñu dimbalee diw. fi mu toll naan diw su amee lii. yàlla ak mën a tax. man maa ko dimbali maa ko joxoon nangam ci alal. Mm-hmm. ba mu ëpp waaye fi doon fayoo mu damay romb. Mm-hmm. kon day mel ni yàlla taxul da ngaa bëggoon soo ko joxee. moom mm-hmm. di ko wax nit ñi. te bis boo defee loolu moom waxee nit ñi doo nga cee mooy lu ci am yàlla subhanahu wa taala waaye tamit ma dégg leen tamit ni kuy joxe tamit nga joxe ci alal ji gën a baax ci yow waxuñu nag nga li nga soxlawul rek di ko joxe. ndax <laughs> loolu tamit wax dëgg yàlla gënul. donte. baax na waaye nag joxe ci yoonu yàlla. Mm-hmm. mooy joxe ci li nga xam ne moom moo gën nga xam ne suñu la ko doxoon yow nga jëm. Mm-hmm. waxuñu nga joxe loo xam ni boo ko doxoon mm-hmm. doo ko jëm. ndax loolu yàlla wax na ku leen tanaalul birra hattaa tunfiqu mimmaa tuhibbuun maanaam doo leen am lu baax. feeg doo leen joxe ci li nga xam ne moom ngeen bëgg. ndax nit ki du joxe loo xam ne daa dem ba amul soxla rek. nga xam ne kon da ngay xool li donc loolu moom mooy li nga xam mooy tax. ñu am yiw. beneen bi des mooy bii boobu moo ci gudd. mooy ku joxe tamit nga joxe ci ànd ak digg doomu. bañ a yàq bañ a yàq. ñoom mooy baatu bi nga doon wax. ñoom dañuy yàq rek. waaw yàq rek la ñuy def. ñu dugal te yàq nag ñaari ñaari façon la. ndax alxuraan ko mooy li ñuy wax li ñuy wax israaf ci arab israaf arab mooy ñu jël alal. war nañ def. mille francs nga dem def ci deux mille francs te mille francs dong nga ci war na def loolu yàqal mm-hmm. waaye nag alxuraan wax na mu li ñuy wax euh, tabzir mm-hmm. jël alal dugal ko fu mu wóor wóor maanaam nga jël alal yi dem jënd dem jënd sa sànga mm-hmm. kon loolu moom la ñuy wax Tamsir yàlla waxam na ni leen ma dirina kaanu ixwaana seetaan maanaam képp ki def loolu rek yow ci mbokki seetaan yi nga bokk kon loolu mooy ndénkaan li nga xam ni dañ koy jox képp koo xam jullit la ñu dimbali suñu mbokk yi waaye di dajale alal rek te alal képp nga dajale da ko fi bàyyi rek kon nañ ko joxe te xool ñu ko yelloo ñu leen ko jox ngir ëllëg yomal xiyaam bu ñu demee ñu mën a am tuyaab yu bare macha allah mu nekk lu am solo xam naa fi ñuy jeexale mooy comme alal yi nga xamante ni comme da nga wax ne alal dafa am façon bu ñu koy wutee ak mu nekk alal bu leew waaye tamit ki nga xamante ni tamit jombul am na si ñoo xamante ni ñu ngi lay bàyyi xel ki nga xam ne mi ngi wut alal mais nekkul anam boo xam ne anam bu leew la mais mi ngi koy dugal ci yoonu yàlla oustaz waaw foofu nag mhm. liñ ci mhm. mhm. def lu baax am ci ko yàlla macha allah loolu moom mënta ne waaye nag boo ci tabaxoon jàkk wala nga def ci dimbali ci nit ñooñu moom seen yoon nekku ci ñoo amuñu ci part de responsabilité. Mhm. parce que alal ci lislaam dañuy xool ni ko nit ki amee dañuy xool su fekkee dañ la ko may. Mhm. yow sa yoon ni nga ko amee. Mhm, macha allah yow ni nga ko amee dañuy xool mooy dañ la ko may te may dagal na ci lislaam waaye ki ko amee noonu nag alal ji nag mën na koo dugal ci yoonu yàlla. waaye nag du ci du ci du ko ci mën a am. la mën a def daal mooy. Mhm. jël ko joxe ko nag ci foo xam ne ay jullit dinañ ko mën a jëriñoo. Mhm. waaye bu mu ko jox ñoo xamante ne nag ay noonu lañ. Mhm. parce que boobaa mën nañu ko jëfandikoo di ko xeexal. di ko xeexal islam. su defee mu tàmbali ci alal ju réew. fexe ba alal jooju mu jaxasoo alal yi nga xamante ni réewul ndax wax dëgg yàlla yoon moom lañu lañu yàlla subhanahu wa taala tracé te képp ku bëgg lu baax na. vraiment war a mën a jaar. te mën a am alal. waaye nag bu nit ñi di tooñ. nit ki ñuy jox àll julewul moom yoonu nekku ci. Mhm. loolu moom dafa koy leeral la bu baax a baax. Mhm. waaye nag dañuy bañ nit ki xam ne nit ki kii day sàkku àll julewul. Mhm. nga di ko ca jàppale loolu mu baaxul. soo ko defee bu la joxee yaa moom yéen a bokk yem. yéen a bokk àtte bi waaw yéen a bokk àtte. dañ ko caa dimbali. ba mu am àll julewul. kon su boobaa loolu. Mhm. macha allah sëriñ Xaadim mu nekk lu ama am solo comme niñ ko waxee rek ci joxe ci yoonu yàlla jàpp na ne yaatal nañ ci lu bëree bëree bëri sëriñ Xaadim euh, sa kàddu yu mujj ak lan ngay tàggoo ci site bi di 24 actu. waaw jërëjëf euh, soxna su xanaa di sant yàlla subhanahu wa taala mhm. bu baax a baax di la sant soxna su mhm. di la gërëm ci opportunité bi ñu may ñu mën a saisir occasion bi mën a wax li nga xam ne jot nañ ni xëy na ñu leen ko mën a jëriñoo xam naa di digal mbokk yi rek. topp euh, site bi nga xam ni. mooy 24 actu mooy 24 actu. ndax wax yàlla euh, am na solo lool ndax ay njëriñam ci yoo xam ne. Mhm. jullit war na ci a mhm. mhm. loolu bokk na a lu baax. te rek loolu ci taxaw ko ñu mën a jàppale la. di santaat bu gërëm ñun gërëm. ak mboolem techniciens yi nga xamante ni. Mhm. ñoom ñoo lay jàppale. Mhm. di sant yàlla subhanahu wa taala. asalaamaaleykum wa rahmatulah. macha allah sëriñ Xaadim Sall ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di ko jaajëfal comme ni ñu leen ko waxee woon rek ci bopp bi tey gëstu dina ji thème bi nekk li xam ne mooy al infaq fi sabilillah muy joxe ci yoonu jàpp naa ne tey faram-fàcce nañ ci lu bëree bëri yaatal nañ ci ñu bëree bëri ñi nga xamante nii ah, nañ joxe seen alal yoonu yàlla waaye tamit xamuñu dëgg-dëgg sabab bi waaye tamit xamuñu dëgg-dëgg ah, lu baax lim leen mën a jural ëllëg ah, tey jàpp naa ne bi ñu toppee Seex Sall mi Oustaz Seex Sall di jëlee nañ ci xam-xam yu yaatoo yaatoo yaatu ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di ko jaajëfal tamit ci yombalal gi nga xam ne yombalal nañu ko invitation bi waaye tam di leen fàttali ne bu leen di suñu site internet bi di 24 actu di leen jaajëfal yéen ñi nga xam ne yéen ñuy topp ci site bi di 24 actu ak ci euh, euh, bi mu feggol ci caméra bi di jaajëfal tamit Cheikh ci montage bi montage bi bu yem mooy rek bi ngeen mën koo seetaan mën nañ ci moom la koy jaajëfal bu baax euh, di leen jox dig daje beneen émission gëstu diina ji waaye tamit beneen thème ak beneen gan wasalaamaaleykum wa rahmatullahi عنه الحمد لله الكريم زلمنا على اشتغالي بفروض وسنن